wajibu yongo idama eh, gati galama ya mangi découvert du maladie universel lu may tege la waay na ngeen di bàyyi na sunu réew léegi moom sunu gox ak lépp lu mu du xaw li dafa war a dox pour nga bokk li dama réew eh, nekk amateur wa Safamiran Ayitel, ada jago rumah, bersama antara, udah mampu.

magal si am ñu boote ñu mu nga boote jow boote damay bind ñu kër lu ko wax ñaari yoon dégg laay dem i am sa kàddu di ko faj ko fay lu jar la de itam moo jël seen assurance seen askan bi am sens. ok merci beaucoup. la fin du mois de juin le PAODES va disparaître va partir et maintenant c'est l'IDAM qui est là pour la population de Koungheul mbokk yi gaaw leen ngeen dem ci UDAM bi. mutuelle de santé la boo xam ne day dimbale njaboot PAODES moo leen di jàppale ci xaalis bi ngeen doon fay waaye PAODES projet boo xam ne day dem fin juin te bu demee fin juin. Fawades li mu leen doon jàppale bu nekkee junni junni boobu ci malade bi lay delluwaat ñu dem nag soo ko bokkee am carnet bi junni bi la PAODES leen jàppale soo demee bokk idam bu idam demee moo lay PAODES demee idam moo lay jàppale loolu la xale yi jàlle message bi kon daw dem idam ci yoonu Tambacounda bi boo rombee fi nga xam ne moom la ñuy wax que ñoom Babacar Sarr wala que ñoom Diarra Sarr idam a ngi foofu ngeen am carnet mutuel de santé pour ngeen am wér gi yaram ndax PAODES projet bi nga xam dafa nekk ci hôpital yi day dem te bu demee junni bi leen PAODES leen jàppale booba da sonn boo amee ordonnance doo ko jënd kon dañuy ñëw ci antu ana antu